salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. dina xam ne golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu ñoon simbu gaynde la. dama lay laaj rek yow xamoon nañu ñoon simbu na. ba léegi da koy def. ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noo bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay détails intéressé wu man xam nga lan laa xalaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama. Ah, damaa yaakaar moo bëreeg moom ba bët set ba guddi mu sangu ñëw suma kër man am naa yaakaar ci Baye Mandione Baye Mandione mi daf ma faa. bëgg fay nañ la. ci loo nekk. Modou Lamine sama turandoo. <laughs> waaw ñu ngi lay siyaar baax waay. si jàmm bu baax. waaw sant Serigne Touba bu wér. yow waaw non tey moom dama football tey damay ñëw rek supporter si quoi tey ñaañ faramaaren ak ñoom Boy Niang mais man maa ngi ci ñoom Boy Niang ah. oui. mais dafa ngeen ko bëgg a def dërëm bi génnul gaal gi affaire géwël ak gi génnul gaal gi affaire géwël ak géwël mais c'est la famille ñoo bokk ndey ak baay ndax ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy yëngu. moo waral tey dafa war a neex mais man moom man Lamine Naar Gawlo ci ñoom booy Niang laay supporter. Ah. waaw nee na yow mbokkam nga de. waaw mbokk mbokk bu jege sax. ci naka. yaayam suma mbokku yaay la. papam suma mbokk la ndax mook suma frère ñoo daan ànd Assane Mbaye ak Mor Kumba cëri un kër du Ndiaye Rose booy ñaa li ñu boore dafa bari làmb boole wunu déedéet moom sama frère la sama lépp la ndax ñoo bokk yaay ndax yaayam ak sama yaay ay mbokk lañ. gars yi am nañ mbër moo tax kuy bëreeg booy ñaa instant bi yéen ñëpp lay moytu. ah waa dëgg neexul dërëm gi génnul gaal gi. waaye lépp senegal la ndax booy ñaa géwal la. waaye géwal du du du rek euh, dafa war a bëri xaw ma nuñ koy mën a waxatee ku mu mënti bëreel daal ñun suñu xol daal dinañ ko jox booy Niang waaye yeneen mbër yëpp suñuy xarit lañ suñu ay doomu ndey lañ suñu ay frère lañ bu ñuy bëre nag ñun xam nga ñun fi ñu féete amuñu droit far fenn ndax euh, milieu bi ñu nekk la ñoom ñëpp dañuy bégee suñuy xarit lañ suñu doomu ndey lañ waaye nag teewul booy ñaa nag mbokk la deret la heure buy bëree ñun géwël ku ci ne da nga am loo yëg même bu doon bëreeg sa frère ba bokkal ndey ak baay sax Boy Niang dafa représenté géwël yi ci lu bari daal. waaw waaw ah. wala wala waa Fass. non bu bu buy waa Fass tamit xam nga xol bi Fass si nekk. Hmm. faas moo ci nekk Fass si dee. waaye deret dafa fort daal deret dafa fort. Hmm. waaw dëgg neexul. kontaan naa ci yow match bi nu mu demee 1-0 wala 2-0. bi daal moom Boy Niang bëgg naa mu dugal ñaar. parce que ñoom Wally Seck tey dama bëgg ñoom booy ñaa jàpp leen def leen comme dégg loolu laa bëgg nan leen wal booy ñaan a dugal ñaar ba pare boole ci ak ay tël nag na leen di tël ñuy naaw <laughs> waaw. gars yi booy xamuñu wàll booy bëgg naa la. bëgg naa la Lamine. Faramaren wala Capacoli. waaye yow Capacoli nga naan Faramaren. plus Faramaren. <laughs> Capacoli. yow Faramaren nga waaye wax wax. yow nuru naa la Faramaren de. mu nga dem na leen a defar Wally Seck laa ne xaar fii pour ma defaral leen nga naan lan. 1 wala 2 0. pour cappaacoli. pour cappaacoli. kontaan naa ci rek jeex na ñu dugg ci mbër yi Omar Diop Omar Diop ñëwal man làmb laa xam football xaw ma ci dara xaw ma sax ñaata ñaata minute ngeen di football. ci loo nekk. oui maa ngi sant bu baax. maa bu baax baax. Zambala raar nga de. waaw non xam rek c'est normal <laughs> xam rek boo xoolee sax dañoo xaw a balance. waaw te xam nga ni mu demee. Hmm. oui. ñoo ko fépp nga année balance ci simple beeg. waaw noonu la demee nag simple beeg yëpp ren moom maa ngi door année balance nag si àdduna bi mooy bi ma dalee bëre ba léegi maa ngi door année balance. parce que li ma def mooy année balance lutte avec lutte simple avec frappe yëpp damaa année balance. waaw lan moo tax lutte simple beeg ren wàccoo ci tamit. waaw non lutte simple bi li taxoon ma raar ko mooy xam nga rek ñàkkoon ay combat si bëre dóor bi bëggoon ma ne sama bopp si bëre dóor bi xam mais dara raar bi dafa mel ni dafa gën a xam nga waaw dafa gën a métti. kon yow réccu nga li tax bëri woo ren ci bëri simple. non réccu ma ko. a nga bàyyi bëri simple. non bàyyi ma ko mënuma bàyyi bëri simple mënuma bàyyi bëri simple man Sénégal lu ñu ma xamee simple bee tax waaw man mënuma bàyyi bëri simple. ana borom sigaay. ah borom sigaay waaw moom dafa xawoon feebar de moom lañu ñuy wax dafa blessé woon. ah est-ce que jëlal brise yaakaar naa brise moo ba tukki si de. <laughs> kooku nee na moom du jël véris non ama ñun moom ama téléphone léegi da ngay jël ay da ngay gis ay 64 giga ama waaw léegi gars yi jël duñ sax carte waaw yaakaar naa virus yi ñoo raar quoi. Hmm. mais yaa ngi koy lu tënk. waaw non ñu ngi waaj. combat bi ñoo ngi si de ñoo ngi waaj ko doon waajee. Boña koo ko jox yow. Boña Boña Modou Lo lamb waaw. roi des arènes xanaa laaju leen seen grand tamit. waaw mais Boy Niang Modou Lo lamb la Boy Niang Modou Lo lamb la Boy Niang Balla Gaye lamb la. bi gën a ñor mooy Boy Niang Modou Lo. loolu nga gis yow. waaw loolu laa gis de. Modou Lo mooy adversaire am. laaj naa la ko yow kay yaa ni Boy Niang kon kay nañ jàpp Boy Niang rek. waaw Boy Niang mooy naa ci yow. nekk nekk nitu télé ba pare ne sopp fu ne ngay bëgg a dugg. sopp du ci am bisimilah. bisimilah lii di ebon nga naan bisimilah. maa ngi nii sant yàlla bu baax a baax. tawféex. jàmm. booy ñëw ak kan. waaw yow yow ñu ñëw. yow man làmb laa xam xaw ma sax ñaata minute la ñu. kon loo fi def kon ñun dañuy fubal si de nga wax ay waxu làmb. mais man bu ma ñëw ba léegi làmb laay wax. mais man man waxuma ni Tapha Kandji ngi kii professionnel la kii professionnel la nga may ay waxu làmb. la ci la. zor la fubal. ci ay ndombo. Tapha Tapha loolu da ngeen ko koy foos rek Tapha xamul loolu de. Tapha sëñ Seex Daaru Raxmaan la xam dëkk ba liggéey toog kese ak sëñ bi <laughs> waaye wàllum làmb bu ko wax fii terrain na football lañ. dinañ ci wax mais match bi kan ak kan la. match bi ñu ko ñun ñooy les cappaancooli ak Zira Marel xaw ma Fara Marel lañ war a juyeel. Abadé affaire Ndour Ndom yooyu am fi tey. non ñu xam ne lépp dëgg la nag barke sëñ Bamba. sélectionné wuñu kenn nag ñii fii ñi fi ñëw ñëpp mafia boña lañ bokk. Mm. yàlla xam na loolu. sélectionné wuñu kenn dañuy ñëw door leen ndànk comme ni ñu war a jëlee roi des arènes. ah roi da nga wax ci lan foo jëlee roi. <laughs> en ñëw bu fubal gaay dóor yi métti waaw. wayal leen nguuda Amina bi deet. waaw d'accord dama ni. waaw couronne bi ah kuréel bi ñu xam nga man ñun moom mooy suñu objectif moom ci kàttanu yàlla képp kuy man mii tey bi ma juddoo sama ndey sama baay ba tey tekki moo tax ma ma ma ma ma judd tamit. mu ngi parcelle. waaw mais ci kàttanu yàlla mën na jugee parcelle ñëwaat Pikine. ku ko jëlee ci Modou Lo. ah man mi ñun ñii nañ ko fa jëlee de. Ah, Modou bi muy nekk bi muy bi muy bi muy bëri daa mos jàpp ni mus naa nekk dina nekk roi des arènes ci àddunaam. mu dab ko nii mun nañ mun nañu daal ñu ñii ñun ñii bu ñu jëlee mën nañ mën nañ ko juumloo récupérer roi des arènes yàlla xam na lool billaay walaay talaay. bëgg naa ci yow. man kay maa la gën a bëgg yow nag fu ñu dem nga loqati ñu. ñaa bëgg naa la. maa lay ziar maa ngi bëgg bu baax nag moom. da gaaw a bàyyi lu war a lool. ah non non. daa il faut xam bu ñu fubalee ba xam temps bi des na ay dix minutes quinze il faut may ñeneen laal da ci baax score bi 5-4 la de instant bi. ñoo mën a 5-4. cappaat cëlu yi ñoo mën a faramandee di 5-4 waaw. faramandee nekk dañuy sóob rek. waaw dañuy nappe rek. <laughs> waxoon nañ waxoon nañ leen danañ leen teg ci ba ngeen nooy. waaw bu soobee moo tax ñoom teg nañ leen de. waale de mi ngi yuuxu rek. mi ngi yuuxu sa waay arbitre tegu ko ci yoon dégol. mais zone bu mag la nag. <laughs> neen dégol tegu ko ci yoon mag la de fi mu toll nii moo ngi solal de. Ah. mais moo ngi ñu ko dara. Ah. bu jeexee jeex na yaa ma gën a xam. mais dégol bi mu wax tegu ko ci yoon nag. <laughs> non non mi ngi ko teg ci yoon. dégol bi mbal bi dafa dugg mu ne penalty la. ñoom la faral sax ñoom la faral de. Ah. dégol bu ndaw ñoom la faral nagamu. dégg de ci loo nekk. sant yàlla bu wér. football ak bëre gën a métti. noo bëree gën a métti. Ah. football moom parfois xam nga bal bi dem beneen ko da nga xaw a récupérer ak yooyu. Ah. mais <laughs> bëre sport individuel la bu sonn. ma foog ne football bay gën a métti. non bu sonn football parfois bal bi bu demee fii yow da ngay am temps récupérer <laughs> mais bëre bi amul yooyu. mais booy ñaaw booy jeex rek. bëre bi doy na war instant bi. waa sant yàlla ah sant yàlla. yéeme na de. waaw làmb ji sant yàlla rek chaque jour ñu ne yéeme na mais après sant yàlla quoi après moom mhm. dara ñu <laughs> ñu ngi toog rek la am na lu gars yi yàlla baax na affaire moom comme ni ko waxee rek ñun ay boole lañ bañ jugee ci làmb ji ñu ngi dem liggéey xam nga di xaar suñu borom may rek ñu jël quoi incha allah. da ngay dugg wala nga dugg parcelle. waaw non fu ma dugg rek baax na. wala Fass. <laughs> fu rek baax na incha ay boole lañ ci làmb xam nga yaaxamte wuñ suñ dara xam nga lu ñu yàlla may rek ñu jël quoi yaaxamte wuñ dara dañuy def nànk-nànk rek incha allah. nga fi xam nga ñoo tax ñun ñii ñëpp ñu bëggul làmb affaire yi suñu ay grand lañu affaire yi amul benn problème kuñ ci war a bëre rek dañuy bëre yow. la ma ko seeti nee mën ngeen ko dindi. waaw nag suñu grand <laughs> suñu grand ñu ngi koy nuyu baa di nuyu am champion bi di nuyu Ama di ko bëgg baax soq ak gaay yëpp ñu leen ñaanal jàmm waaw waaw noonu la nag suñu grand la yéenam la wax rek yàlla yàlla mottali yàlla yeggal incha allah. même wax bi tamit la ma Ngagne Diagne wax Ngagne Diagne vidéo bi génneegu la mu wax nee na Eumeu ko a na dem mag la rek xam ne dañ koy ñaanal loolu xam nga gën ci moom moom la quoi suñu borom moom mooy maye lu mu la may rek da ngay jël quoi dem xooli leneen incha waaw. man dama jënd glace <laughs> ñooñu ay champion lañ affaire yooyu xam nga tey match lañ ñëw a yi. non man làmb laa xam man football xaw ma ci dara. waaw noonu la mais <laughs> wax instant bi non man maa ngi booy laa ngi dem laaj. na promoteur bu ne bëgg na ko de. waaw da ak Père Bourkhane ñoom mën naa am ñu wax la dara. ak Jimbo Ibou Jimbo nee na bëgg na combat boobu. waaw dara ñun moom ay tout ñu ngi ñu affaire yi daal di góorgóorlu yàlla baax maa ngi lay nuyu bu a xam nga di nuyu Waly ñu ngi bëggee bu baax a baax dafa mel ni gars yi dañu égaliser. égaliser nañ kay. léegi hors zone ah. bii la maa ngi bëggee gars yi baax na xam nga jug mën a yëngal affaire maa ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp. di ziar ñëpp waaw di sant yàlla bu baax di nuyu waa Pikine di nuyu sama fans yëpp. waaw maa leen nuyu bu baax di leen wax ñu jàppale seen i doom ku ci mel ni Ama Eumeu Sène ak man ak ñeneen ñi si biir ñoom sox ak jatli gars yëpp ñu jàppale leen parce que nit amul lu dul fi nga dëkk xam ga ñu bokku ndey ak baay parce que dañoo war a bokk ndey Ama suñu frère la man aussi sama rak laa xam ma soq noonu ñu ñëpp ñu bokk ndey ak baay parce bu xol yi àndee rek yàlla ñëw quoi. soq ne nee yàgg baal nee na yàgg baal la koy la bëgg soq. lépp mën naa ne suñu frère Ama ñu koy ñaanal sa mu teel am combat xam nga mu bëre daaw def na année blanche te ñun ñëpp neexuñu xam nga. di ñaan ñeneen ñi def année blanche yëpp suñu boom may leen combat laa mu neex xam nga xaalis ñëw gars bokk ko la am jàmm. MMA waaw MMA waaw ñu gis nañu moo gagné waaw ñu koy félicité noonu la bu génnee doonatul affaire de adversaire bu génnee affaire de peuple la quoi dañ koy ñaanal jàmm bu baax a baax incha bu jeexee. yow laa kañ nga def MMA MMA. <laughs> luy MMA. bëre ba <laughs> loolu bëre laa xam sama yaay di nga. loolu du bëre. maa ngi nuyu salaamaaleykum man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez-vous xooyantaan Xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah. mu ne tël Gambie jàkkaarloog moom. dina xam ne golo golo du golo du kañe de. yow yow xamoon nañu yoon simb gaynde dama lay yow xamoon nañu yoon simb na. ba léegi da koy def. ah déet xaw ma di jaar na ci di. man xamal ma ci intéressé na taxaw nekk doomu aadama rek en tant que loxo noor bëgën baal bët gémmi leneen li ci des ay détails intéressé wu ma. man xam nga lan laa xalaat. ñu bëree ba pare mu ñëw faama. Ah, damaa yaakaar ma bëreeg moom ba bët set ba guddi mu sangu ñëw suma kër man am naa yaakaar ci Baye Mandione Baye Mandione mi dafa ma faa